الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه mbokk yi ñu ngi sant suñu borom mi kawete màgg di seere ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg jaamu ko di jëriñ ñàkk jaamu ko di lore ku dul moom kenn la ci nguuram kenn la ci ay melokaanam yelloowul ñu koy bokkaale kenn moom mi nga xam ni mooy ki lewet waaye mooy borom kumpa di seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la ndawam la moom mi yàlla yónni mu woo doomu aadama yi diine ji gën a mat ci diine yi yoon wi gën a jub gën a maandu ci yoon yi woo leen ci mbaax woo leen ci njëkk woo leen ci teraanga ku topp wooteem boobu texe ku ko sori daal di texee di ñu ñaan borom bi mu dolli ko jàmm xéwal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog bés penc mbokk yi ginnaaw loolu ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ci jëfe ay digleem te bàyyi ay tereem mbokk yi suñu borom dafa xool jamonoy ceddo ba nit ñi nekkee ci réer dafa xool waa suuf mu mere leen ñoom ñëpp mu mere leen moom suñu borom subhanahu wa taala comme ni mu dikkee ci xadis bu wér muy xadisu iyaad ibnu ximaar bi nekk ci saxi muslim nee na yàlla mere ñëpp ñi nekk ci kaw suuf ña ca nekk arab ak ña ca nekkul arab lu dul ñi desoon ci kaw suuf tënku woon ci ci li nga xam ne mooy diine ahlul kitaab mu ñi tënk woon ci judaïsme ak christianisme te lañ jàppoon mooy la ca tane suñu borom mere leen lan moo tax li shirkin kaanu alayhi ngir ay bokkaale yu métti ci jamono jooju yu nekkoon ci kaw suuf kenn ku neex da ngay xool loo lu la loo gën a jekku rek nga jàppee ko yàlla di ko jaamu yemuñu fa ñuy def ay jëfu doyadi ay jëfu doyadi mbir yu doyadi yoo xam ne xel nanguwu ko nite nanguwu ko njub nanguwu ko waxuma la ak diine lislaam ñëw daal di yëkkati xeet yi ci kaw suuf yëkkati leen ci wàllu aduna yëkkati leen ci wàllu diine soreel seen wéetal yàlla soreel leen ci wéetal yàlla lool tàqale leen ak bokkaale akuk doyadi màggal seeni jikko ba doomu aadama yi waa kaw suuf yëpp naw seeni jikko ñu tënku ci njub tënku ci diine yi dëgg suñu borom di feeñal diine ji di ko yëkkati muy avancé di jëm kaw yeneen yi dellu ginnaaw mbokk yi li ko waral mooy tënku ci lu kawe mooy njubug alquran gu tedd ak njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam bu mucc ayib boo xam ne sikkul manqué wul njàngaleem alquran moomu ak yaru yonent bi yonent bi alayhi salatu salaam yar ci saxaabaam yi ko yàlla dénkoon boole kook ñoom mu yar leen ci loolu ci fukki at saxaaba yi génnee ci li nga xam ne mooy araab yi ci bokkaale setal li nga xam ne mooy arab yi setal leen ci bokkaale ba des lu néew ci ñoom ñoo xam ne moo ñu dëgër bopp ak ñu xelewul kuréel goo dem mbooloo moo dem société boo dem am na fa ñu dëgër bopp am na fa ñoo xam ne xeliwuñ munoo wax a wax ba génnee liñ nekk ñooñu rek ñoo desoon jikko yi kawe lool ba ñi dul arab ak ñi nekkutoon ci lislaam mbir mi xëcc leen ñuy riir di wuti si diine lislaam gaa yi di dugg ci diine lislaam ci anam goo xam ne gu jéggi dayo la bés bu nekk semaine bu nekk weer wu nekk at mu nekk nit ñuy dugg si ci lislaam ci anam boo xam ne dafa jaaxal ñi nekkutoon ci lislaam mu nekk mbir moo xam ne dépassé na ñëpp kenn mënu ko téye lii nit ñi daw di riir di wuti di dugg diiney Muhammad ji lan la yemu fa mu fekkoon fi ay civilisation yoo xam ni nekk nañ fi ay junniy siècle ci kaw suuf kenn mënu leen fi jëlee du xeex bu leen fi mën a jëlee du njàngale mu leen fi mën a jëlee du doctrine bu leen fi mën a jëlee lislaam ñëw puus leen muy mu fekkoon fi romain yi jële leen fi fekkoon fi perse yi jële leen fi te ñoom musuñu yaakaar ne dina am lu ñëw mën leen jëlee ci kaw suuf lislaam ñëw jële leen fi wuutal suuf ay jikko yu rafet ak ay njàngale yu jub ak maandu te daal di koy feesal ci kaw suuf nit ñi rëcc wuñ li ñu bàyyi civilisation romain yi civilisation perse yi ñëw dugg si ci li nga xam ne mooy diina ji di diina lislaam ñu gis ci seen texe gis ci seenu dal gis ci seen njub waaye seen maru jaamu yàlla ñu daal di ko ci gis ba soxlaatuñ jaamu leneen lu dul borom bi subhaanahu wa taala ci seen wàllu aduna l'islam tërale leen ay règle ci wàllu jëflante yoo xam ni kenn ku nekk diñ ci gis sa bopp doo jàpp ni dañ maa tooñ wala dañ maa xañ samay àq dina ji laabal leen leen ñu am li nga xam ne mooy seen ngërmaane boroom waaye ñoom ñu gërëm li nga xam ne mooy diine ju nekk waaye gërëmante seen biir mbokk yi ñu dema dem ba jamono ji dox jamono ji dox xéwal googu doomu aadama yi yoroon ak yar googu ak jaarinu jaar jaar googu nga xam ne lislaam jaar na fi doomu aadama yi ñëw daal di koy réere mu doon loo xam ne danger la bis bu ñu réeree suñu jaar jaaru diine ak njàngaleem diine ak lim fi indi ak lim fi fekkoon ñu mën a comparer mbir yi su boobaa jafe-jafe yu lay ñu jural mooy li ñu dal suñu euh, yitte ci suñu diine yitte woo suñu diine daa di faible ñu dama dem ba suñu xeet ak suñu diine njàngale yi fi ne woon nga xam ni soxlaatuñu woon leneen yeneen mbir ñëw di ko remplacer mel ni amuñu lu ñu satisfaire suñu diine loolu nag boo ko xoolee ak réer mi ngi ci waaye réer gi nekkul moo yenu lépp ndax jamono ji ñuy dund li nga xam ne mooy ñàkk jàng wàññeeku na lu bëri ci doomu aadama yi ñu ngi jàng li nga xam ne mooy li ñuy tuddee réseaux sociaux yi tasaaroo dañu lool nit ki mën naa nekk néegam mën naa nekk bureau mën naa nekk biir otoom mën naa nekk place bi muy commercé mën naa nekk boutique am mën nay dox ci mbedd mi mën na nekk ci tukki moo xam ci terrain wala ci oto wala ci avion di xam li xew ci wàllu xam-xam ak lu mu bëgg a xew xam ci wàllu xabaar kon ñàkk xam-xam ak seet maanaam manquétul ci doomu aadama yi loo soxla xam mën nga ko xam aduna bi mi ngi gën a jege nekk benn village planétaire di gën nekk benn bul culture yi ñu ngi gën a jaxasoo mën ngaa gën a xam ci li nga nekk lan mooy safaan bi mbaax bu nekk lan mooy safaan bi jàng xam-xam ci moyen de technique yi am technologie yi am gën a yomb lool mbokk yi waaye xel yi gën a suufe xel yi gën a doy waar doomu aadama yi di gën a bëgg yu suufe école yi gën a tasaaroo université yi gën a tasaaroo institut yi gën a tasaaroo waaye doomu aadama yi gën a réere seen diine ba tawxiid bi yàlla yónni woon yonent yi wàccee diine ngir moom wàccee téere yi ngir moom ñu bëri ci xeetu lislaam sori ko bu boo leen di wax tawxiid dañ lay jàppee ku yow ci sa bopp dañuy jàppee ne yow li ngay wax nii vraiment moment bi opportun wul ñu koy wax li ngay wax nii nit ñi réerewuñ ko xam nañ ko ñu dem a dem ba tawxid boobu lam doon tere doomu aadama yi nuur ci moo yëkkati ay nit bi leen màggal ba jox leen palaasu yonent yi ñu ne déet ñu jox leen palaasu yàlla takkal leen garaatu yàlla yi ñu ne déet nit ñi di bokkaale waat yàlla nañ ko ceddo ko doon bokkaale wee samp leneen du dul yàlla teg ko palaasu yàlla di yaakaar ci moom àq yàlla di yaakaar ci moom mu lor la wala mu jëriñ la ñu ne déet di dema dem ba ay doomu julit ñoo xam ne sax léeg-léeg dañuy woote wax xam-xam garaatu xam-xam tudde leen professeur tudde leen ay docteur ainsi de suite ñuy wax loo xam ni lu leer naññ la ci diine loo xam ne maalumun min ad-diini bi darura la loo xam ne kenn réewu ko ci diine lu principe la fondamental la ci diine ñu toog di ko weddi ak toog di ko remettre en cause toog di ko diingat toog di ko xas toog di ko dajj loo xam ni xel musul xalaat ne kuy woote woo xam-xam nekk ci lislaam àgg ci benn niveau bi loolu ni mu nekkee lu leer naññ ci diine nga xam ne boroom xam-xam yi fi jaar mettre wuñ ko en cause su fekkoon lu ñu war a wax la daañ ci wax bu doon lu ñu war a diingat la daañ ko diingat bu doon lu ñu war a dajji la daañ ko dajji ñoom ñu jébbal ko seeni xel nangu ak wérug loola koo xam ni nag moom day ñëw <clears throat> ci jamono ji woote wa garaatu xam-xam am fit ak audace bu toll ni taxaw di ko daaj di ko weddi ñëpp xam ne lii ci diine lu indiscutable la nekk lu ñuy discuter lu ñuy wax mbokk yemuñu foofu ñu dama dem ba jikko yi wàcc lool ci jullit ñi monde bi di tey monde bi mi ngi avancé ci économie di avancé ci wàllu technologie waaye di dellu ginnaaw ci wàllu diine di dellu ginnaaw ci li nga xam ne mooy wàllu jikko loo musul xalaat ci kaw suuf ne nit dana mën a exposé taxaw ci kanamu doomu aadama yi di wone ak di am fierté ci jikko yu suufe doomu aadama yi tey àgg nañu fa ñu dema dem ba maandu amatul kóllëre amatul koo wóolu mu war la dëgg wax dëgg boo ko waxee ñu attaqué la ne da ngay diingat da ngay xas ila axirihi dëgg léegi wax dëgg mooy xas ak jalgati ñu dema dem ba kóllëre amatul ñu dema dem ba yemuñu foofu ñi nga xam ne mooy kii nekk ci dëgg dañ koy jàppee ku métti ku tar ñu dema dem ba kuy def ay caaxaan mooy mujj nekk star moom la ñu mujj yëkkati moom la nit ñi di mujj di topp bal moom la ñu gën déglu mbokk yi mu doon loo xam ne lu yéeme la ñu dama dem ba famille bi nga xam ne moom lañ dese woon ci suñu biir kër muy famille famille boobu doomu aadama bi amatul maîtrise pour yar fameem famille bi da koy yar waaye am na lu ko ëpp doole loo xam ne moo ñëw influence famille bi lim ci defoon semaine ci benn seconde ci trente seconde ci une minute ci cinq minutes am lu ñëw yàq xale bi changé xalaatinam changé culture am changé doctrine am changé changé li nga xam ne mooy vision ci benn mbir bu muy xool ci 30 secondes benn mbir bu muy déglu ci trente secondes wala benn mbir bu muy liir ci une minute mu changé ko wëlbati gisinam wëlbati xalaatinam wëlbati yarinam walbati éducation am mu am beneen xalaatin am beneen gisin am beneen comportement am beneen doxalin loolu tey mbokk yi moom la ñuy dund mu nekk loo xam ni lu yéeme la yemuñu fa wuute gu métti suñu biir yemuñu fa waaye ñun jullit ñi ci kaw loolu yu suufi yooyu ñuy topp ñi ñu koy toppaloo ak di ñu ko sàndi ñoom nangu nañ ay réew yu bëri tey ci réew jullit ñi contrôlé ko di fa def lu leen neex contrôlé suñu économie di tuur ay deret ci jullit jullit ñi continuer di topp yi nga xam ne mooy yu absurde yooyu yu suufe yooyu mbokk yemuñu foofu di dama dem ba rayante ci biir jullit ñi tey ci réewu jullit yi mu tasaaroo lool tonguwante ci ay réewu julit xuloo ci ñàkk fayda ci ay réewu julit àgg ci léeg-léeg ay boroom xam-xam àgg léeg-léeg ci ay mbo mbootaay wala ci ay mbooloo lislaam léeg-léeg ci li nga xam ne mooy ay ONG walla yu demee noonu mbokk yi ku seetaantal aduna bi ñuy dund da ngay gis lu yéeme aduna bi dañ koy gérer gestion aduna bi tey dafa nekk ci loxowu kuréel gu tuuti gu ndaw lan ngay gis ay juif ay yahud yoo xam ni ñëw dominer monde bi luñ baaxal mu baax kenn ñi koo bonal ku ko bonal ñu diaboliser la luñ bonal mu bon donte lu baax la fa yàlla ku ko jéem a baaxal ñu diaboliser la stigmatiser la marginaliser la doyadal la euh, ragal loola nit ñi taxe la takkal la iture yoo xam ne daanaka dooto ñemee wax te ñoom ñu ngi teg seen loxo ci am réew réewum jàmbur adduna bi yëpp ànd naafiq nangul leen ko wane na ñoom liñ nekk dëgg la teg seen loxo ci suufu jàmbur teg seen loxo ci koomu jàmbur teg seen loxo ci réewu jàmbur muy Palestine di fa def lu leen neex kenn du wax di réclamer ay droit yoo xam ni amuñu ko fenn waaye aduna bi comme day dox ci ak naafiq ak hypocrite ñu nangul leen ko ñoom dañuy rey di dóor di tëj bi exilé euh, kàddu du jib bu ñu reyee kenn ci ñoom aduna bi yëpp yëg na am na ku ñu rey ci ñoom mbokk yi tey samp na ci kaw suuf ay organisme ak ay mbootaay yoo xam ne li leen tax a jóg mooy di occuper loo jullit ñi ñuy occuper wu ci ay mbir yoo xam ni ay futilité la ay mbir yoo xam ne ay caaxaan la di leen ci occuper loo mu jël seen temps ñu nekk ci di ci werante di ci xalaat ñoom ñuy liggéey ci loo xam ni ci la ñuy gën a mën a noote léegoo leeg ñu sàndi yoo xam ni jubluwaay bi mooy teg loxo suñu économie léeg-léeg teg loxo suñu xel suñu xel ak suñu xalaat léeg-léeg teg loxo sax li nga xam ne mooy suñu réew mbokk yi li ñu yóbbee lii mooy sori ak sori niitu ci njàngaleem borom bi subhaanahu wa taala suñu borom dafa wax ni yàlla de mi ngi féeteeg ñi gëm yàlla te ñoom it dañoo war a féeteeg seen borom ndax seen borom daf leen di génne ci lëndëm yóbbu leen ci leer kon saa bu ñu féetewoo ak yàlla suñu borom teg ñi ci leer sori ju lëndëm waaye saa bu soree féeteeg yàlla di féeteeg leneen lu safaanoog yàlla loola dugal ñu ci lëndëm sori li nga xam ni moom mooy ak leer mbokk yi ñu ngi dund mbir yoo xam ni du lu xel nangu du lu ak nite nangu waaye du lu ak diine nangu mbir yu suufe la mbir yu doyadi la ak suufe tey ak suufe ak def yu suufe wax yu suufe jëf yu suufe xalaat yu suufe tey mooy avancé loo nit mooy tax nit doon dara mooy tax nit siiw mooy tax nit am tur mooy tax nit nekk dara mooy tax nit di tiitaru def lu baax nekkatul tiitër ci jamono ji ñuy dund mu doon loo xam ni lu kenn mënta expliquer la mbokk yi kuy topp di setantal li am ci li ñuy tuddee réseaux sociaux yi moo xam whatsapp la moo xam twitter la moo xam facebook la moo xam telegram la moo xam snapchat la da ngay gis loo xam ne lu yéeme la dañuy d'accord yu ñëpp ne yii participer nañ ci yàq ak dégrader suñuy xalaatiin suñuy jikko ak suñuy comportement suñuy société ñun suñ bopp ak suñuy njaboot ak suñu biir société moo xam nangu nañ ko wala nanguwuñ ko participer na lool ci tasaare mbir yoo xam ni dem nañ ba nangu ko tey at ci ginnaaw kenn mënta woon a nangu loolu mbir yoo xam ne nangu nañ koo seetaan ay at ci ginnaaw nite nangu ko woon seetaan waxuma la ak diine ay mbir yoo xam ne dañ koy nangoo déglu daawuñu ko nangoo déglu waaye dem nañ ba <coughs> mu yóbbuñu foofu ngay gis nit ku yàlla may alal mu waroon a toog sant yàlla ci alal ci jaamu ci yàlla muy filmer bool bi muy añee yàpp wi muy lu tàng li muy naan lu sedd li muy naan di filmer environnement bi mu nekk di ko woon ay nit lan la ci jublu mooy tiitaru mbokk yi loolu lu suufe la wala lu kawe la ak a suufe lu suufe lu doyadi nit koo xam ne amul lu muy filmer di ko dugal ci benn réseaux sociaux lu dul oto bu mu am jubluwaay bi lan la ci est-ce que day sant yàlla wala tiitaru wala wanewu wala def jëf ju suufe la kooku fan la xelam toll koo xam ni dañ koy may soxna mu jàpp am di ko filmer naan ko tourneel wëlbatikul xaqataayal reetaanal doxal arrièreal avanceal dugal ko ci ab réseaux sociaux nit koo xam ne dañ koy may borom kër mu jàpp borom këram di ko filmer waneel sa bopp waneel sa bopp wanal gars yi li nga leen mëne tourneel doxal demal dikkal wàccee ko ci réseaux sociaux yi mbokk yi ndax ñu ngi xalaat ñun ndax ñu ngi xalaat fi ñu tollu ak mbir yu suufe yi ñuy def fan lañ toll ndax lii nite la ndax lii nite la ndax diine la suñu yonent alayhi salaatu salaam wax ñu na ngeen sori bët na ngeen sori làmmiñ tey doomu aadama yi li leen di dal ñuy dem ci sëriñ si pour ñu defar seen i problème wallahi lu ci bëri ñoo ko yóbbee seen bopp yaa wone yi nga waroon a nëbb yaa ko teg yaa ko exposé ci ay xéewal yoo xam ni mënu nga ko wane ci beneen anam boo xam ne da ngay sant sa borom subhanahu wa taala nga jógee foofu mbokk yi nga gis gaaw a tasaare goo xam ne li ngay tasaare doo vérifier lu agsi nga jàllale wér na wala wérul sa yoon nekku ci naa ko njëkk a li ngay tasaar lan moo ci nekk dañuy accuser benn waay lu loo xam ne moo ko def lu garaw la est ce que moo ko def wóoru la dañ ci yàq deru nit dañ ciy xas nit dañ ci wuñ wuññi awray nit dañ ciy wuññi awray nit awray këram awray njabootam awray liggéeyam dañ ciy ternir image nit li ngay tasaare lu mën a yàq sécurité la lu mën a taal réew la audio bi ngay tasaare vidéo bi li mbind mi lu mën a taal ab société la sa yoon newu ci li ngay tasaare ay nari kese la ay fen la yoo xam ne dara du ci dëgg li ngay tasaare luy gën a woon nit ñi naka la ñuy defee monter la naka la planifier sàcc naka la ñuy planifier rey naka la ñuy planifier monter nga koy tasaare. loo xam ne dafay yokk ak tiitaange ci biir société bi moom ngay tasaare wér na wérul dëgg la wala du dëgg même bu fekkee après waa ji day génnaat ne li ngeen gisoon ñu koy tasaare ci man dara du ci dëgg maa ngi jéggulu yow sa yoon newu ci jàll na ba pare jàpp nga ne yow amoo ci benn part de responsabilité set na ah kay am nga ci bàkkaar ci jàllale loo ja loo warta jàllale tasaare loo warta tasaare am na ci koo xam ne yàq nga journée am na ci koo xam ne yàq nga liggéeyam am na ci koo xam ne yàq nga añam am na ci koo xam ne yàq nga reeram am na ci koo xam ne sax ba mootul yëngal nga kar jaagam ila axiri yi waaye loolu lépp soo nekku ci mbokk yi ñu ngi tasaare ay mbir yoo xam ni dafay tasaare ak ñàkk dal ci nit ñi tiital leen am na loo xam ne boo ko tasaare nit ki journée bi yëpp ci tiitaange lay yendu te amaana du dëgg te jot nañu xam ni aduna bi ñuy dund am na fi ay centre yoo xam ne ci monde bi centre yooyu seen liggéey mooy di tasaare mbon ak di tasaare luy tiital ay nit ak luy yàq ak loo xam ni luy tasaare mbon la ñoom loolu ci la ñuy liggéey 24 heures sur 24 ci lañ leen di fay salaire loolu mooy seen objectif naka la ñuy tasaaree mbon centre bi loolu mooy liggéeyam centre bi naka lay tasaaree ak tiit ci doomu aadama yi loolu mooy liggéeyam centre bi lan mooy liggéeyam wala site bii lan mooy liggéeyam mooy tasaare rumeur moom lu jógee ci moom rumeur la dara wéru ci te am na koo xam ne xàmmeewul loolu lu ñëw mu jàllale ko loolu mbokk yi war nañ ci bàyyi xel bu baax moo tax suñu boroom wax ni ñoom de si loon dikkalee mbir moo xam ni dafa aju ci wàllu sécurité wala wàllu wàllu insécurité tiitalaate dañ koy tasaare azao bihi waaye buñ ko delloo woon ci yàlla buñ ko delloo woon ci yonantam ba ak ñay seen i borom xam-xam laaj leen ndax lii nii la wala du nii la alimahu alladina yastambituunahu minhum ñi nga xam ne yàlla may leen ay xam-xam ñu mën a xellu xalaat mën a gé ràññeet la mbir yi la ca wér la ca wérul daañ mën a génnee ba xam lii lu wér la wala wérul loolu mbokk yi bokk na ci li nga xam ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi àgg nañ foo xam ne suñu jamono ji nit ñi dem nañ ba forcé leen ñuy seetaan lu xaraam di déglu lu xaraam te bàyyiwuñ ci xel ñaata ci ay vidéo lañ lay puus mu ñëw sa compte nga koy seetaan musique mi ngi ci yow image bi moo la yitteel parce que image bi monté nañ ci kenn koy xàqataay jàpp nga ne da ngaa war a ree ngay déglu reetaani musique bi fàtte nga ko alors que musique la image bi dañ cee monte bët yuy jooy yow jooy yi nga bëgg xool waa ji jooy lu muy jooy fàtte nga musique ba yaa ngi koy déglu yaa ngi déglu musique par force ñu ngi la koy force nga koy déglu soo yoon nekku ci mbokk yi léegoo-léeg image bi day wane jigéen ji def lu yéeme loo xam ni yow lu yéeme loolu ngay xool mais jigéen ñi dafa sol lu bon lu bon lam sol yow bàyyi woo ko xel yaa ngi koy xool yow image bi lan moo la yitteel mooy moom la muy def lañ wax ne moom la def ndaw si la mu def mais lim sol léegi yow fàtte nga ko ñu ngi lay forcer nga seetaan ko far force yaa ngi koy seetaan mbokk yi kon seetaan loo xam ni lu dëppawut ak kersa la te ñi koy tasaar loolu lépp lañ cay lañ cay boole mooy bum la raw comme bum la raw yow di nga fexe ba bum la raw te dalaa war a raw yow yaa ngi sonn ci bum la raw te dalaa war a raw parce que li ngay seetaan ay bàkkaar lay jural li ngay déglu ay bàkkaar la lay jural ñu naan la bum la raw dalaa war a raw yow léegi bu mu la raw bi tax nag du la raw nga rey ci sa bopp bu mu la raw di yàkkamti tiim ko déglu ko wala seetaan ko fekk na wallaahi dalaa waroon a raw mu rawoon la moo gën fuuf waaye bu la raw boobu ñu lay sàndi dina tax da di nga def lu nekk ba du la raw soo paree na waaw moom kay rawuma alors que dalaa waroon a raw mbokk yi mbokk yi ñuy seetaan léeg-léeg dañ koy tiitre tiitre boo xam ni vidéo bi day raar nga bëgg ci rey sa bopp léeg-léeg day reetaanlu léeg-léeg titre bi day nekk titre bu foor di ci rey sa bopp te loolu ñi koy titre dañ koy santi mag mën na koo seetaan amaana waru ko woon seetaan jigéen war na ko seetaan amaana waru ko woon seetaan parce que jigéen am na état bu muy tollu du lu ñëw mu seetaan ko xale mën na koo seetaan amaana tollu wut ak moom mu seetaan ko lam koy yàqal ci avenir am ak changé xalaatinam dafay bëri mbokk yi tey lii la lii lañuy gis tey moom la ñuy moom la ñuy moom foofu lañu toll te suñu borom nee na ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم am na ci loo xam ni bu agsee ci yow waroo ko déglu waroo ko jàllale waroo yàkkamtee bokk ca borom bi nee na lu tee woon bi ngeen ko dégloo ma ngi nettali ca xaadisatul ifk ba ngeen déggee tuuma ya wax yu waxewul yooya qultum maa yakunu lana an natakallama bi haza ngeen ne ah ñun lii suñu yoon nekku ci duñ ci wax subhaanaka yàlla sell ñàkkal na la haza buhtaanun azim lii ay sosi la te wallahi li ñuy jàllale ak bëri ay sos mbokk yi fi ngay gën a yéemoo te foofu lañuy ñuy mooy réew mi ñu nekk monde bi ñu nekk société bi ñu nekk médiocrité moo fi moo fiy dox promotion de la médiocrité tey ku la gën a suufe ku la gën suufe gën laa doye di ci jikko gën dàq laa bokkaale yàlla daq laa weddi yàlla daq laa sol lu ñaaw daq laa wax lu ñaaw daq laa saaga dàq laa xaste mooy star ki jàngale lu wér di tasaare lu wér delloo nit ñi ci yàlla di woo nit ñi ci njub moom du dara ci société bi ñu nekk kooku tekkiwu fi dara tey dugal ci biir réseaux sociaux yi nga topp compte ñi ñuy tuddee ñoo siiw ci biir société bi ci ay woykat ki journaliste ki ay ñu kenn xamut nga topp ngay topp ñoom la ñuy def ñii nga posé wu question lan moo tax ñu war a siiw lan moo tax ñu àggal leen benn niveau bi lan la lu tax ñu àggal leen benn niveau bi ñu àgg lan moo tax danga naan xanaa su ma fa dinaa fekk lu am solo demal seeni compte nga dugg fa benn waay buy wax loo xam ne kenn mënu ko comprendre moom miy wax comprendre li muy wax ba nit ñi di ko comprendre benn li nga fay fekk benn waay bu jékki-jékki rek oo oh, yuuxu ba mu neex ko noppi yuuxu boobu mu am ci million vues yuuxu boobu mu ci million vues yuuxu nit lu nit lu muy seetaan ci yuuxu nit mbokk yi yuuxu nit lu ci nit di seetaan benn waay bu toog di yuuxu mais nit ñi tey topp nañu ay tawaaf yi ak ay taafihaat yu suufe ay absurde ak futilité ba benn waay bu toogee ubbi kontam yuuxu ñu ne kaay xool waa ji yuuxu na bu ñëwee toog ŋaax nit ñi seetaan nga xam bu jooyee ñu seetaan jooyam donte 30 secondes lay ubbi jooy nit ñi dañ koy seetaan ba pare ay vues vues la ciy am ay millions vues la ciy am foofu lañ tollu tey yemuñu fa. Euh, boo toppaatee nga dem ba yàgg gis koo xam ni moom day ubbi tam photo boppam daal di daal di jóge fii tëb dem fële loolu nit ñi jàpp ko capturé ko dugal ko ci TikTok ko fu nekk nit ñi di ko seetaan diw moo tëb dem fee waaw lu ci tëb diw bu tëb loolu lu ñuy seetaan lu ñuy partagé la lu ñuy tasaare la mbokk yi. tey nit ñi jàpp ne loolu dara la loolu waa ji am ci million vie deux millions vie léegi loolu bu fa yemoon mu neex de léegi dañ koy invité ci palaato sa tëb bi nga tëb mu jural la million vie tëb boobu noo ko tëbee ak noo ko mënee ak lu tax nga def ko mbokk yi ñu teg ko ci plateau yàq une moom muy yàq waxtu nit ñi di ko dimbali di ko seetaan di yàq waxtu ànd ak moom di yàq waxtu mbokk yi ce que ñu ngi seetaan ñu ngi seetaan ñun xel xel yi suñu xel yi fi ko yi di yóbbu ak fi ñuy mëne ak ni ñuy organiser ak ni ñuy détourner suñu xel ak fi ñuy poussé ñuy dem dangay ngay dem a dem ba sa xel day dee da ngay dem ba lu ñàkk solo pourtant am na solo de nga fekk benn waay bu dëgër fit di ko defaan naan la pourtant dara nekku ci da ngeen a compliqué bokk yëfu dof koo xam dafa toog yuuxu toog tëb ah jékki nu muy solee yére ñu filmé ko di ko seetaan mu am ci million fii loolu lan lay tekki ñun boo koy xool suñuy sos di ko analyser mooy dañoo yóbbu dañoo mën ci terrain boo xam ne bu doy waar la léegoo leeg mbokk yi li ngay gis mooy euh, ñun ñooy pousser nit ñi ñu tekkiwul dara ñun ñoo leen di may ñu nekk dara ñoom ci ñun la ñuy jaar pour nekk dara jot na ñu tekkiwul dara ñi bañ leen a mayeti ñun ñu nekk dara ku fi def yëfu dof bu la kenn déglu ku fi wax waxi dof ñu classé ko ci waxi dof yi ku def yëfu dof ñu classé jëf ji ci jëfu dof yi waxu dof dañ koy jàppee waxu dof yëfu dof dañ koy jàppee yëfu dof bañ koo xool bañ koo déglu bañ koo seetaan bañ koo tasaare bañ koo publier bañu bokk ci ñi nga xam ne dañ koy jàllale mbokk yi mbokk yi bokk na ci lu suufe lool moo ñu dema dem ba génnee sa awra góor guy dox génnee awraam ginnaawam nekk ci biti nekk tiitër loolu tiitër la ci jamono maanaam ku góor ki koy def moom daa tekki dara tiitër la ci moom dafa am da da ciy dundal nafsam da ciy dundal ruuxam da ciy dundal boppam loolu day tax moom buy dox mu yëg ne moom dara la mu yëg ne man dara laa lan moo tax dara laa mooy maa ngi dox sama awra génn ci biti jigéen ji koy def waxaale wuñ ko moom waxaale ko ñu dema dem ba mbokk yi li ñuy gis mooy génération boo xam ni fiiratuñ ci seen yaram fiiratuñ ci seen xel fiiratuñ ci seen diine fiiratuñ ci seen éducation fiiratuñ ci seen bopp du la yéem boo xamee génération boo xam ni wax ju jub wax ju normal ci kanamu kilifa ci nit wax ju normal munuñu ko génération boo xam ne mënul solu solu ku ci sol yére nga yërëm ko génération boo xam ne bu ci ku ci toog ndab di lekk da nga koy yërëm lekk gu jub gu baax sax normal mënuñu ko loolu boo ko xamee du la jaaxal génération boo xam ni foo ak caaxaan moo leen gënal jaamu yàlla foo ak caaxaan mën nañ ci def 10 heures de temps 5 heures de temps waaye ab xutba vingt minute gudd na ci ñoom te lañ leen di wax lu leen di jëriñ la julli mbooloo bu leen di jegeel seen borom subhaanahu wa taala julli 5 minutes googu dafa gudd match football làmb euh, meeting politique ay caaxaan loolu 2 de temps 3 heures de temps amul problème temps bi guddut temps bi guddut baax na mais 5 minutes julli 25 minutes 20 minutes xutba 15 minutes xutba 10 minutes dars 15 minutes dars mu am amuñu patience su toog déglu ko ci darsam bi dafa gudd ah li muy wax dafa bëri. waaye yeneen yi moom lu mu yàgg-yàgg génne wu leen mbokk yi tey génération bi ñuy dund foofu la leen nit ñi foofu la leen yu suufe yu yóbbu foofu la leen àggale mbokk yi génération boo xam ni topp ay bànneexu bakkan fekkee ab match de football fekkee combat wu <coughs> làmb <coughs> fekkee meeting politique moo gën a am solo ci ñoom dem joxe julli mbooloo ci jàkk yërëmtalu na ka ciy góorgóorlu ci ñoom pour dem julli ji jàkk def effort sax day dem julli ji jàkk waaye lam sol jotul siletement bi siletement la sol di ko jullee bëgg na lu baax waaye da nga koy yërëm xamul wala buy julli bu sëggee ndigg li day génn ci biti moom kooku moo ci góor góorgóorlu moo ci tane kooku mooy ki nga xam ne boo ko xoolee da nga naan ndeysaan mbokk yi jamono ji nekk loo gën a loo gën a def yëfu dof nga gën a siiw loo gën a def yëfu dof gis ku la tàccu gis ku la supporter gis sax koo xam ne daf lay défendre loolu nag mbokk yi li muy tekki mooy ay jikko yoo xam ni mu ngi gën a suufe mi ngi gën a daanu jikko génération bi mu ngi gën a daanu suñu culture ci diine àggul ci maturité ñorul waaye génération boo xam ne bu sori njàngalem lislaam la bu sori njàngaleem diine gi nga xam ni moom la waroon a rey boppam sonn ci su ko defee loo gën a jege sa diine gën a dégg njàngaleem gën a nite gën a nite ci sa comportement gën a nite ci sa pas-pas gën a nite ci say jaamu yàlla gën a nite ci sa jikko loo ko gën a sori nit ñi bu ñu la xoolee daanaka say wax ak say comportement ak say jëf mbirum bàyyi ma lay nuru loolu li muy dëggal moo la yàlla waxoon ne am na ci nit ñi ñoo xam ne comme ay bàyyi ma léegoo léeg sa mu ne bàyyi ma yi sax ñoo lan tane mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dund allahuma laka alhamdu xata tarda wa laka alhamdu ida radit ولك الحمد بعد الرضا اللهم ارزقنا شكر نعمك واهدنا لسبل السلام واكفنا شر الطغاة والمرجفين والمناوعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله